On est la on est là, on est là sur notre anniversaire de notre fils ay ndox yoo xam ni Mouhamad Diouf moo ci nekk suñu doom ji cinq lay feete tey ah doomu génération conscience bi doomu bébé baas doomu papa Diouf a ño ko baay ah gars yi nee nañ paree guñu nag bébé baas tey li mu nar la nit ñi war a xam lan la lii buffet de l'Amérique la buffet de États-Unis lii États-Unis rek la am xoolal neem yi xoolal fleurette yi illaha illallah xam naa ne ñi am na ñoo xam ne bu ñu ko gisee léegi léegi léegi léegi léegi léegi léegi dinañ vex non les brossettes de cœur brochette de cœur yaa ngi nii yii xanaa eh Mouhamad Diouf a ngi nii ñëw dagg ma nii ah borom birthday bi sa birthday bi amatul moom fiis sa birthday bi amatul sa yaay ak sa papa defaral nañ la lu rëy ak say baay ak say mag ak nijaay ak ah loo dund doyul moom fiis loo dund doyul mais ñu eggali filmage bi lii moom ay chum la non ay ay salmon la salmon mooy jën bi gën a cher ci jën yi mooy salmon mais mais mais sëñ Mbacke bëgg naa nga ñëw wax ak man ci lii waay xoolal xoolal poulet de crème yi. xam nga loolu doo ci lii mënu ma cee wéet. sa doom. Ah. sëñ Bamba. moom la ñu defal damaa bëgg nga ànd ak man ndànk ci fataaya yàpp yu baax yi wax ak ma di ko décortiquer. di ko décortiquer jour à jour. heure ak heure ak parti ak partira ra. mais. <laughs> la xoolal yi kaani ak yi mayonnaise la xanaa lii moom fils de fils de la mère la. mais lii lan la nii. ngir doo ci joo xamante ni. mooy sama ndey yaa ngi may daaneel gat gat gat gat noonu lii. te pare gu de naa xoolal yi tomate de fleur ah ak des concombres de vie noonu lii ëpp na. laa it woy woy saba woy yaayoo. ah crevette de vie yaa ngi nii ak ñoom crème de salade egg sa laa ilaha waaye yow lii la la lii la la lii woy sama ndey yaa ngi may daane noonu lii garaaw na de mais bul ubbeegum bul ubbeegum bul loolu bul ubbeegum wuu yaa yooy te dégg naa pareegul de ornage lii du anniversaire lii ngénte lii ngénte la lii ngénte la wuy sama ndey te pareeguñu yii jus de fruit wooy laa illa waay waay jile pareegul pareegul léegi laataa ngeen di pare non ndox yi jël naa ko laataa ngeen di pare xaaral ma génn jël décoration xale yi fi xale yi war a fowee ak lekk yi ci yooyu tey moo frère na ñëpp indi seeni doom na ñëpp indi seeni doom xale yi fii yaatu na fii yaatu na nice na xale yi fii la ñuy fowee ah. xale yaa ngi nii ak seeni affaire fii la ñuy fowee ak yéen waaw <laughs> ak yéen ak yéen maa la gën a bëgg moom frère non maa gën a bëgg waaw waaw waaw waaw waaw man la doom yaay Pape Diouf ñoo ko bàyyi. dëgg neexul. waaw ak sa doom yaay. na ko animation. mais mais xale yaa ngi eh, eh, eh, yéegal yéegal fool fool fool fool fool ma xool. c'est pour les enfants. les cocos de beignet doo ma may benn ma xool yow may benn. déet non lii xanaa ngénte waat la Pape Paris Dakar daal mën na lu ne lii daal moom xam naa ni Paris Dakar daal non barki sëñ Bamba tey dëkk bi yëngu Paris Dakar daal mën na lu ne mais Fallou le frère kon ci yoon bi nga ko doon lii la la rek soor ba lii Habib Mané lii garaadu le laay laa mais lii dafa garaade soor ma laa ilaha illallah ay waay jire lii lan ay waay maxu suba lii lan ay waay Paris Dakar mën na lu ne eh. laa ilaha illallah lii de musuma xaa wuyaay anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire dooba jàpp de dooba jàpp de